ni ko président waxee woon dafa bëgg Sénégal gépp ñëpp génn set setal dëkk bi tey le président Abdoulaye Dièye par doole ji nga xam ne da ko am pour rassembler mu rassembler fii nga xam ne mooy DVF di koñam bépp couche boo xam ne nekk nga fi di association di daayra di président ASC yi ñu ngi nii toog di nga xam ñi nga xam ne ay jour lañ yoo xam ne dañ fi nekkoon depuis génération 2004 créé association ñoom ñoo fi ñëw tey ñoom ñëpp jàpp ci liggéey bi nga xam ne ki nga xam ne mooy président Abdoulaye daf ko woote biir koñam ndax lan li nga xam ne président da ko santaane mooy lan gën leen ngeen set satal seen koñ bi defal ko pas de xumbaay pas de mumbaay ku nekk na too sa koñ defal ko moom heureusement ba waa ko ñoom nandee loolu ci moom ndax li mu fiy jariñ teel a génn ñoom ñëpp jàppale ko si li nga xam ne mooy liggéey bi nga koy def fii ndax da naan béy si sa wewu tànk ku nekk si fi nga dëkk soo fa jugee pour jëm feneen incha allah dinañ daje ba dëkk bi nga xam ne mooy Thiès euh, nga xam ne mooy point départ bi nga xam ni ñun ñi nga xam ne ñooy waa ma si gi jot na fii mooy suñu base nan la ñuy def ba Thiès gi nga xam ne mooy suñu baat ñu déparé bi suñu koñ d'abord ba ëllëg ñuy daje leader bu nekk déparé sa ñu daje ba sa setal bi nga xam ne dëkk bi nga xam ne président de la république dafa bëgg mu set mu set wéet bëgg moo tax tey président Abdoulaye Diaye encore une fois du première fois muy def set setal ndax bii mooy deuxième fois danoo nangu nag action bi pérennisé wu bëgg ba ëllëg chaque samedi wala chaque premier mu fin ñu dajé sax sant nettoyé comme bi yëpp déparé ko fi amana suñu defee ni benen leader def ni dinaan dajé ba dëgg bi nga xam mo ci Thiès damay sante ki nga xamante tay mo moo initié lii muy le président de la République le président Macky Sall parce que li day wane rek sa vision ak engagement bi nga xamante ni ko pour jëmal le Sénégal kanam donc tay kenn mënul woté euh, sénégalais bu développé te amuñu cet parce que cet da lo loo dafa am importance ci dëkk mais tay je pense que ni yéen rek ngeen ni appel bi nga xamante ni son excellence le président Macky Sall def na ko nit ñi dégg na ko ndax tey ku gis fii euh, cette forte bi nga xamante ni tey ñëpp ñëw nañ taxaw ngir bare seen i gox donc tey je pense que ni lii ak citoyen la donc tey Thiès du ñëpp ko bokk amul kii fële la far amul kële fële la far ñu ma wër ñëpp si yeneen parti politique ñu bokk ñu bokk si opposition ñi am ay association ñi am ay réseau de femmes ñi nekk euh, ay et président d'ailleurs tay tey ñoom ñëpp ñëw nañ répondre ci li nga xamanteni dañu tay man pla len wo donc may woote rek que la population ñuy né xar-xaram bu bees nit ki da nga wara xol lan la nga wara a defal sa dëkk mais bu rek xol sama dëkk lu mu wara a defal te je pense que set dañ ko wara commencer ci suñu bop d'abord donc tay je pense que ne lii moo waral véritablement ñu wo toute la population te bu ngi leni remercier mais aussi les ñaax surtout di di ñaax ndaw ñu parce que tey bu bu ne rek état bi moo leen war a mais ñun aussi am nañ devoir am nañ ay responsable engagé pour euh, dëkk bi